di ziar bu baax a baax mboolem sëti Serigne Touba yëpp waaye di ziar bu baax mboolem sëti maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp di ziar mboolem seexi Serigne Touba yëpp di ñaan ci barke Serigne Touba Cheikh Ibra li ñuy topp ci e, e, yoon wi yàlla nañ ci daje ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine di santaat bu baax a baax a baax mboolem mbokk yi nga xam ne dañuy topp saa ne ci waxtu wi di bàyyi xel seen jotaay bii nga xam ne dañ cee waxtaane njàngale maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine tey nag e, nu fas yéene waxtaane maam Cheikh Ibrahima Fall ak worma tey mooy thème bi nga xam ne moom lañ fas yéene waxtaane waaye tamit ñu seq ko ak suñu kilifa goo xam ne duñ ko présenté kenn defe naa mas na jaar ci émission bi waaye tamit indiloon ñu ci lu am solo ci maam Cheikh Ibrahima Fall loo xam ne ba mbokki taalibe ñu ngi ciy bëgg bu baax a a baax tey nag ñu àndaat ak moom jotaay bi muy maam Cheikh Fall moom Serigne Cheikh Fall Mboor ñu gën ko xam ci maam Ibra Fall mi nga xam ne eh, léppam mooy eh, eh, taxawu yoonu maam bi waaye défendre tam Eh, yoonu maam bi ñëpp dégg ay kàddoom tamit muy borom xam-xam di jàmbar di ko xam ne su waxee rek sa xel mépp demaat ci eh, kër maam Cheikh Ibrahima Fall waaye sa xel yëpp demaat ci tamit worma bi nga xam ni yàgg nañ ko jox njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridine eh, incha allah moom lañ fas àndal tey jotaay bi dañuy jox sëñ Aline Badara Ndim sunu wéttal mu nuyoo ak mbokk yi ñuy seetaan ñu dalal sëñ maam mu nuyoo ñu door a nag tàbbi ci biir waxtaan bi bisimilah sëñ Aline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 mbokk yi ñu baaxoo kon àndal si waxtu wi su jotee talaata si émission boo am solo bii ñuy jagleen maam Cheikh Ibrahima Fall di jës bu murit ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax jiital ziar bi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké xalif général des Mourides ñaanal ko mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ziar ak nuyu Serigne Cheikh Jëmb Fall xalif général des Baye Fall ñaanal ko mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaye di ziar bu baax a baax ak nuyu Serigne Cheikh moom maam Saalih moom maam Cheikh Ibrahima Fall suñu bun si maam di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaanal mboolem mbokki jullit ak mbokki taalibe yi di yaaw baax a baax nag euh, sunu sëriñ bu tedd bii di maam Ibrahima Fall moom euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ñu gën koo xam seen Cheikh Fall Mbawor moom ñu mm. Seydina Alioune Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy yaaw bu baax a baax di am mbégte euh, di kon di seqaat moom jotaay bu am solo bii ni nga ko waxee woon ci jaar gu am solo bu mu fi jaaroon ba léegi mbokki taalibe yi di ko laajaat tey ñu jaaraat fi lépp rek ngir waxtaanee jëmm ju tedd jooju yàlla nañu sunu borom may dégg ak topp barki maam Cheikh Ibrahima Fall di la ziar bu baax sëñ la jërëjëf sëñ ci eh, nuyoo bu am solo boobu sëñ maam ñu jox la kàddu nga nuyu ak mbokk yi jàkkaarloo ak noonu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani la hawla wala illa billahi al ah, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziare. di jiital ci sunu nuyo cheikh sidir mukhtar ni khalifa general de mouride ak serigne cheikh jëmb fall ni khalifa maam cheikh ibrahim fall babu mouridine ak sunu buntu ci keur cheikh ibrahim muy serigne cheikh fall mawor waye itam ñuy nuyu mbolem buntu keur maam cheikh ibrahim fall bayyi wuñ ben ndax ni ma ko baaxoo waxee rek kër keur cheikh ibrahim fall keur go fi tuddu am neeg la ci bir keur gi ñoo ngi leen di jaar ba ci rakam ju tedd ja serigne salihou fall ci daru mais nah, itam ñoo ngi leen di ziar bu baax hmm. di nuyu hmm. itam mboolem bunti kër cheikh yi nga xam kan, ya? hmm. ne ñoom ñoo gàddaayoon toppi maam cheikh ibrahima fall babu muridin te bokk ci njabootuk maam cheikh ibrahima fall ñoom ñëpp ngi leen di nuyu di leen ziar gën jaa rafet ab ziar eh, ni ñu ko baaxa waxe ci sunu nuyoo di fedd li itam sunu pas-pas bu dul fecceeku ci jàmbaar ja nga xam kan, ya? ne addina bépp xam na ne la mu waxoon ca sësin ca mbàkke kajoor digg ma xaadimu rasul pas-pas booba képp ku dëgg ñor xam nga ni Cheikh Ibra Fall dellu ci gannaaw luy tolloog lu dee ci we mhm. di feddali sunu yaakaar judul ju nu am ci moom te du tas àddina du tas àllaaxira mhm. eh, di ko feddali mhm. ndax damay wax ne ci nuyoo bi rek lañ nekk doonte bokk nu woon ci deret ci Cheikh Ibra Fall mooy ki nu doy ci diine leneen doyul lu moom kon lu mu ne war noo nekk ca loola war na noo jaral sol daldi dox ba mu xar ci liggéeyal ko mm-hmm. ak ak ak ak topp ak bëggam mm-hmm. kon ñu ngi nuyu di leen mm-hmm. seen tubaarkalla jërëjëf sëñ maam <laughs> sëñ sëñ maam Cheikh nuyoo na nuyoo bu am solo boo xam ni eh, matale na lépp daal eh, xam naa bala ñuy dugg ci thème bi eh, su fekkee ne waa Rési jàpp na rek ñu ànd ak Serigne Saliou Fall Farsaw ci déclaration bi nga xam ne Serigne Cheikh Jëmm Fall defoon na ko ci Touba àllarba bi weesu rek mu jëm ci Euh, daaree maam Cheikh Ibrahima Fall jooju nga xam ne ñu ngi koy liggéey ci jannatul maxwa te sëtti maam Cheikh Ibrahima Fall yi euh, di ko taxaw euh, ci ndigalal ci jëwriñ ni Serigne Modou Fall muy jëwriñ moom Serigne Amdi Yaasin ñu ànd ak Serigne Saliou Fall Farsaw ci déclaration bi nga xam ne Serigne bi defoon na ko mu yoroon kàddu Serigne bi foofu ci jotaay ba ñu door a dellu ci jotaay bi. ñu ànd ñoo leen di nuyu bokki taalibe yi di leen jottali nuyoob Serigne bi. nuyoob Serigne Cheikh Jëbb xalif général de Baye Fall mi ngi leen di nuyu di leen gërëm te di leen sant di leen ñaanalit ci taxawaay yii weesu te ngeen taxawoo ko taxawaay bu rafet muy liggéey bii nu génnee mu ngi leen ciy gërëm di leen sant te di leen ñaanal ak liggéey yi ko jiitu tey jii nag li waral teewaayam bii ak mbooloo mi ak taskati xibaar yii fi daje lenn rekk la mooy ñi nga xam ne dañu di ay taalibe ci moom waaye nag ñu meññee leen ci kër gi ñuy ay doom ñoo toogoon ba yàgg ñu daje xalaat <clears throat> ne nun day sunu doxin ci yoon wi daal war nañ koo yokk ñu ne waaw loolu de dëgg la noonu na koy yokkee ñu ni barab bii di jaanatul mahwa te sëriñ Abdoulaye joxoon ko Cheikh Ibra ñu defal ko fi barab kër géej sëñ moo daami te liggéey ko ànd ak sëriñ bii tey ak donga yëpp ba mel nee mu mel yàgg am na nuyu itam nag lu nu fa war ndax penc ma ba te yaatu na des na lu ne xaj na fa kon nan fa def daaray Cheikh Ibrahima joo xam ji dañ fay jàng alxuraan ku ci wattu téere bi ñu jàngal la xam-xam nga jàng ci xasiday sëriñ bi ba gën xam sëriñ bi loola ba ñu waxtaanee ci noonu ñoom dañoo daal di ni nan dikk ba ci sëriñ bi wax ko ko bi ñëwee ba ci sëriñ bi yëgal ko ko mu ànd ceeg ñoom kon loolu ci ndigal lañ ko teg loolee nag la sëriñ bi di bëgg mbooleem ñu yaakaar Cheikh Ibra te am man-manum man cee jëf ñu jëf ca ndax ñoom kat liggéey ba ba ngay dox man mi barki dem rek dem naa fa gis ko kon feem ne ba ngay dox waaye nag dafa laaj ñu jàpp ci lu ci bari nag tax serigne bi def li da ci am ño xam ni yu mel ni su amé te dégguñu kaddu serigne bi mu diglé wala mu tok ñu diko waxal euh, nañu ko gëm nañ ko wara gëmé duñ ko di gëmé dañuy yaakaar ni rek leneen nga ci waye li nak tay li tax serigne bi def ko moy bëgg ñu yaakaar ci Cheikh rek ñepp di bokkam nak lako ko ci mom ñi mu bokkal Cheikh ibrahim mi ngi leen di sant di leen ñu dugal seen loxo ci liggéey bii di daare Cheikh Ibra ji ci jànnatu ba mën a mel ni ñu ko bëggee kon loolu mooy woote bi nga xam ni moom la sëriñ di woote woon tey jii bëgg ñëpp dégg ko boo gisee rajo yi tey jii ñu mel fi nii loolu dañoo bëgg rek mu tasaaroo de euh, maket bi moom ku xool Lamp FM te di ko seetaan danga ko ca gis ñu di ko wone di ca wax waaye boo gisee nag ñu indi média yi yépp ñu ñëw teew dañoo bëgg kenn ku ne yóbbaale ko ba ku dégluwul rajo beet déglu rajo bi di nga mën a xam lii sëriñ bi digle lu mu doon ak lii ñuy santaane lu mu doon dara dootu la ci réer loolu moo a mbooloo mii mbooloom euh, média yi fi daje daje fi kon loolu la sëriñ bi waxoon ni naa ko jottali mbooloo mi di yëgle it ni loolu yi moom dugal na ci loxoom teyit la ko ca war fas la ko yéenee def ci ci ci ci jàppale leen ci ci ci ci ci loxoom ak ci ndigalam loolu daal la bëgg kenn ku def fa nga jëm nga yóbbaale loolu soo demee xam ni sëriñ bi lii moo doon woote bi tax mu woote tey jii am na nag ñeneen ñoo xam ñii ni ñu ngi fi ñoo xam nii dana ñu jotal ci liggéey bi eh, fii ma fii ma yem danañu ko weesu daañu tàmbali daañu ci wax leneen ndax suñu sabaa ngi di toog ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ni ñoom itam lu mel nii rek moo leen fi indi waaye lii daal mooy li nga xam ni mooy dëgg dëggi woote bi sëriñ bi bëgg daal na ci ñëpp dugal seen loxo ba liggéey bi mën a sont mel na. tubaarkàlla jërëjëf Rési tubaarkàlla sëriñ Saliou Fall Farsaw ñu ngi ñaan suñu borom doole ko fa yàggal lool te may ko ak wér moom moo yor kàddu sëriñ bi keroog ci jotaay bi waaye dégg nga rek ni mu waxee sëñ Aline Badara ci daara ji. mel na ne kon daara ji ñëpp ci war a jàpp ndax euh, sëriñ bi joxe na ndigal li yeesalaat na ndigal li euh, du ñàkk sax nga indiwaale numéro yi nga xamante ne bi xëy na ñàkkut ne mbokki taalibe yi nga xam ñi ngi bàyyi xel télévision bi te euh, am yéene jàpp ci danañ ci war a mën a jaar ngir jokkoog jëwrin yi dëgg la sëñ Mamour muy daara joo xamante ni njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall bi jaarale ko ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu duppee daayira jaj bu murit mm. bi dajale surtout Cheikh Ibrahima yi kon ñoom ñoo ko taxawal mm. taxawal ko nag si ndigalu Serigne Cheikh jëmb ni nga ko waxee. Mhm. ndax ñun ñëpp gis nañ ni ni ni waxtaan wi demee. Mhm. lu lu lu ñor nag Serigne Cheikh jëmb ba tax mu wootee mboolem ñu toog mu mhm. yëkkati ay kàddoom. xamal ni kon ku si nekk war nga see jëm loo mën ak loo mënul. ndax nag alxuraan moom mooy kër bi rek te yaakaar naa ni sëñ Maam Ibra dina si ñëw bu baax. kon ku si bëgg a jëf moom. ndax ndigal su mom, moom jëf rek le le lañ lañ ci xaar képp ko xëy ni rek ndigal li wax eh, egsi na yow mm-hmm. nga xamni ku ci jëf ubil nañ leen compte SGBS mm-hmm. di 00, manam 00, 601, 41 02 95 54 901 loolu mooy compte SGBS bi nga xamante ni daara ji tijji na ko mhm. ñàkkul ne bu ñuy euh, daanelaat suñu kàddu ci euh, émission bi incha allah dinañ si dañ ko baamuwaat mhm. ngir nit ñi gën kaa mën a bàyyi xel ngir jëf si mhm. euh, képp it ku si bëgg a yaakaar naa ni boo jegee fii si Lamp Fall wala rek nga dem dëkk bu sell ba di Touba kër sëñ jëm wala foo mën de foo mën di dem rek maanaam daayira Jazbul Murid ñu ngi fépp daal incha allah loo si bëgg rek si jëf incha allah di nga dina àgg fu mu war a àgg jërëjëf sëñ Alioune Badara tubaarkàlla euh, sëñ maam Cheikh xam naa nag te dañuy tàbbi ci biir euh, jotaay bi tey muy Cheikh Ibra ak ma du ñàkk sax ci kanam tuuti danañ àndaat ak euh, ñaareelu élément bi muy Serigne Moussa Fall Fatikan nga xam ne keroog Serigne Cheikh Jëmb faal moo ko jox ndigal mu waxtaane ma maanaam ñu jë gën a joxaat ma yoon wi xam naa ci kanam tuuti danañ ànd ak rési waaye sëñ maam Cheikh ma daal gis nañ ne Cheikh Ibra ci njëkk ñépp ndax ni mu wormaale woon sëriñ Touba defe naa ne war naa tax ku am jom delluwaat ci ma googu nga xam ne jàngale woon na ko. waaw ah, jërëjëf sëriñ Mamour. Euh, li nga wax danañ sawar lool ci yëkkati ci ay gàtt. Mhm. ñu sawar itam ci sóobu ci. Mhm. ndax dafa mel ne tey boo ne yoonu murit. Mhm. liñ ko gën a xàmmee mooy yar ak teggin. liñ ko gën a ràññeet mooy ma kon loolu yëpp boo ko boolee muy yar ay teggin sutura tege ci siraatul mustaqim sëriñ bi daf koo tënk ci benn baat mu tudd ak taalibe te tey buñ ñu nee taalibe mënuñoo wax taalibe te waxuñu maam Cheikh Ibrahima Fall ndax mhm. tey yi nga xam ne ku ko gis ci yow xam ne ab morit nga ci lu jiitu muy xam ci foo bokk mhm. loolu alal li maam Cheikh Ibrahima Fall yàgg naa ko wax ci ay jotaay yu bari mhm. ne leen ni Seydina Ibrahima xalilullahi amee alal ci lislaam mhm. nga xam ne tey boo ne aj màkk mhm. mënoo koo def te indoo safa ak mhm. boo ne aj màkk dañ ne la alxaj arafa sànni jamra mënta ñàkk te mi ngi jóge woon ci maam Ibrahima ak doomam ji Ismaila ak soxnaam si zam-zam ci sunu baaxum réew mi ku fa jóge sax moom nga joxe sëriñ ci gën a àddina ak Ismaayila ci la loolu soso mu mel ni itam li nga xam ne njaañeen ni gën nañ cee xir muy jaamu yàlla goo xam ne dafa ànd bakkan mooy li ñuy wax tabaski ci rend gi sunu borom doon rendi loo Ismaayil eh, sunu eh, Seydina Ibrahima Ismaayila ca loolu la soso mu mel ne yooyu tey boo ko buuboon teg ko fële yan ponk ngay indi taxawal ko ne ko lii mooy la loolu kon ken mënuta waxtaane lislaam mhm. te jiitewuloo worma ak ndigal mhm. li tax ma ne mënoo koo def te jiitaloo worma ak ndigal mhm. yi sosu yépp ci ñaar yooyu la tàmbalee muy jëfe ndigal ak weddi ak sàmm sunu borom ak jéema muri mbalaanum warma sunu borom moo tax bi nga xamee ne sunu borom tànn na ngir wut ab xalifa xalifatullahi fil ard tànn sunu maam muy ki njëkk a wàcc ci kaw suuf waaye mu di ab yonent ku nu yónni mm-hmm. bi mu ko exposé di waxtaan ci moom di xamal malaayika yi ak melokaan yi lu ñu yéemu mm-hmm. li mu leen wax mooy fas jut de aadama da ngeen su jotal aadama malaayika yépp maase jëfe ndigalal seen borom ba mu def iblis moo tax mu ne abaa wastakbara mm-hmm. wa kaana minal kaafiriin ah, bi Iblis desee nag sunu borom dane aba wastakbara wa kaana kaafiriin daal ne Iblis bañ na Iblis lànk na rëy rëylu na kon bokk na ci yéefar yi ah, keroog nag la jëfe ndigal tàmbali ak weddi ndigal loolu ci la nangul sunu borom tàmbalee ak gàntal ko ci la wormaal kam wormaal tàmbalee ak jéem a xotti wormay suñu borom ndax mbalaan la moo xam ne Mm-hmm. sunu borom mi ko ràbb rek mo xam ray ba mm-hmm. waye ñi ko mësa jima xoti ku ne mm-hmm. amna lu lum ca daje bi ñaar yoy amé nak moy ki jëfe ndigal li ak kiko ko ñaari kurel da di sosu benn bi ñukoy wax hisbullah benn bi ñukoy wax hisbu moy mbolo mi nga ni ni iblis weddee sunu borom reey lu te bëgg xoti wor maam la dal ci kawam ak ñi nga xam ne dañoo nangul yàlla ci war maam te jëfe ndigalam pay ga bokkul moo tax euh, muy ñaari kuréel yooyu di xisbu saytaan ak ak xisbullah xisbullah yi li mu leen jural moo di euh, ngërëmul yàlla ak ku texeem fi dunia wal axirati ñi nga xam ne ñooy xisbu saytaan it lam leen jural mooy pertangel àddina ak pertangel alaxira Mhm. loolu itam nekkul ne daf ko yemale ci sunu maam aadam mhm. waaye daf koo wéyal ci mbooleem ku ko mas a wuutu ci kaw suuf mhm. ci diggali suñ borom yi rek waaye itam xisbu seytaan it dañoo wéyal ñoom it seenub liggéey ca ko iblis doxe woon ca kanamu borom kon ana waa kër Lóot yi nga xam ne muri mbalaanum sutura ma ko yàlla muroon moo leen taxoon na jóg Mhm. ana lan moo dal ci seen kaw kon pertangal àddina mhm. ak alaxira dal na leen mhm. ana ñi gasaloon sayidna ibrahima xalilullah ba nung nam rosa fan mooy seenu mucc indil yonent yàlla noox ci wooteem bu yàgg ba ñàkk wuy ji géppit lii seen pexe lépp mooy muri mbalaanum suutura mi ko yàlla muur ba ñu demee ba war koo def nag ci la sunu borom ne sutura man kon ak orma ci man la ne la dal ca gaal ba ci njabootam nga sës ci moom sax te bokkuñu ci sunu borom daf ne ko laysa min ahlika li ngeen bokk bokk deret pas-pas yi bokkut kon ñoom mm-hmm. bokkuñu ci yow ana waa kër Isa alayhi salaam mm-hmm. ci noonu lañ ko toppantee ci yonent yi mm-hmm. ba yëf yi nag agsi ci sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu ñëwee am na ci loo xam ne ab liggéeyam ndax Muhammad rek lañ ko tudde woon waaye bu demee bañ naan Muhammadul Amin jëfama ku ñu wóolu ki njub gu mën maa màkka ak wér warmaan la jëmmam mm. ba ñu jox ko war ma jox joxuñu ko kenn ba jox ko tur woowu bokkut ak li ñu tufli ci ab noppal muy al amin muhammadu rasulullahi ja nag mm-hmm. moom defu ko du lu mu sabab la coobaree yàlla mm-hmm. liggéeyul ngir gën ñëpp liggéeyul ngir ñu yónni ko loolu coobare la waaye la jiitu nag xormay boppam la te mooy amin te moom ci boppam moo ko sàkku ja ya ca topp nag mooy ja ko yàlla jox mooy xorma ji nga xam ne ci sunu borom la jóge mhm. te it képp ku xor jéem a xotti war ma jooja da nga dajeeg sunu borom xam ne ab digéem moom du gàntal mhm. iblis it dana fétteerlu dana dëgër dëgërlu waaye du am mukk ndam ci kaw sunu borom mënta ne mhm. loolu moo waral bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ànd ak 313 muy jëysu mën a dajeeg ñetti nangam faagaagal leen mhm. baatub sunu borom jooju muy ndigalam ak warmaam jooju ñu def te ñu gàntal ko moo tax mhm. yàlla ànd ak moom ba mu daan keroog ndax dafa jug ci warmay sunu borom ji ak ndigalam ci di ko doxal mhm. ñee fas yéene koo weddi muy sallallahu alayhi wa sallam euh, bi fe sallallahu alayhi wa sallam jógee gàttalun mbir mi dañ koo doxal mu agsi ci xulafa arbaa muy ku mel ne sayidna sadiq ñu wéyal ko ci loolu ba ci Seydina Omar mm-hmm. ba ci Seydina Ousmane bun Affan mm-hmm. wéyal ko ba ci Seydina Aliyun mm-hmm. karamallah bi nga xamee ne loola wéy na taxut ñu ne ah gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu fi indiloon diine te dem na ñeent ñam doon jotaayoo ndool dem nañ léegi ku ne ci noonu fu la neex sànni fab tànk loolu bokkul ci war may lislaam loolu nag moo waral saxaabatu rasuul yi taabiina yi dox di doxal loola ba nag mu jaddit yi agsi bi mu jaddit yi egsee itam téerewul kenn ku ne na nga dégg ba ci boroom ngir yi kenn ku ci ne na nga déggee doxale nga sa diine ca noona tey moo tax Sénégal di wax ne ay maliki yoon na leen ñeneen ña ngi ca saafiyan yi ñeneen ña nga ci anbali ba ñeenti ngir yi jeex te téerewul kenn ku nekk respecté nga sa morom ndax kenn ku ne fa nga xuus ci ak dégg xuus ci sa borom. ba mu déey la lu mu déeyul kenn. wala mu nandal la ci ndox moo xam ne nandul la ci kenn ndax inna allaha ala kulli shay'in xadir kon seneen cam su jóg. ne peeg naa li yàlla def nangam wërta am. damay jàpp ne moom ku juum la ku rëy rëylu la la daloon iblis daa dal ci kaw. ah bu loolu amee. mu jaddit yi ñëw. Mhm. ba sunu waa ji ñëw nag. Mhm. teg loxoom ci dënnam ne mu jaddit la mhm. waaye daf ko wane ci firnde yu leer ne mhm. moom mooy wutaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. ndax du lu ñu ko tuumaal dafa wax ne lil Mustafa na weytu maa yu jaddidu sunnatahu xara wa inni ahmad kon gannaaw loola la faw sunu borom indilaatal ko la mu indiloon ña jiitu la gaaroon Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. gaar ñu ko jiitu woon mhm. konkat moom mi leen wootu yaakaar naa ni ku ñëdd soo des war naa jël sa jàngoro mhm. moo tax bi sëriñ bi ak seet mu gase ko ak ay noon noon bi taxaw daat ne dara doxati li ma bëgg indil leen ñeent sama politique laa leen indil sama diini laa fi indi sama langue laa fi indi sama culture laa fi indi sëriñ bi ne ko yii nga fi indi yépp dama koo buub sànni ne le lu dul li ma sallallahu alayhi wa sallam indil soxlawu ko defe naa woote ba yaatu woon na lool mhm, mhm. ci ñu fasanti ko mhm. ci ay der ak ay jëmuwaay waaye sëriñ bi li mu doon woote ci aw yoon muy murit itam teewul woon ñim fi fekkoon ñëpp da leen a joxoon ab cër tagg leen wax seenu góorgóorlu ak yoon yenu aku tubaab bi ne du sëriñ bi nekk fi la sëriñ bi wax ba dem mhm. xam nañ ko xam nañ ne mhm. ki ngay jappante la boko jappé yobbu lam la wax neexul mhm. légui ki dess nak mom lam wax ba dess moko xam lolu intéressé wuñ <laughs> waye mbir mi nga xamne tay motax ñu muy touba ak euh, cheikh ibrahima fall ak xoram sunu borom fam yi duñu yam mukk la tax mu tan sallallahu alayhi wa sallam def ko mu gën ñepp du mu ko defal coobareem nee la al amin yonent bee ko liggéey waaye muhammadu rasulullahi moom coobare yàlla tey lan moo tax ñu dem màkk di wër kaaba ga moo ne doj la ne doj waaye béréb buñ wormaal la boo xam ne kàddug yàlla lañ cay sàmm dama le sax yu ni mel waaye tey boo génnoon xool ci bitti jàkkaarloo ko weer wi mënoo cee xàmmee ne weer wi kat mooy muharram doo ko xàmmee ci clair de lune waaw <laughs> du tax mm-hmm. asamaan si soppi ko doon wurus mm-hmm. wane ne weer wii kat dañ koo teeral moo tax ma mel nangam mm-hmm. waaye téerewut la ca suñ borom dëxëñ lu nu ko bañ bañ loolu dana am te sëñ eh, sunu borom a ko wax inna iddata shuhuri indallaahi isna ashara fukki weer ak ñaar isna ashara sahran fi kitaabillahi yow ma xalaqa samawati wal ardi minha arbaatun waaw ana lu leen di wutaleeg yooyu <laughs> minha arbaatun xurum saalika diinul xayima fala taslimu fihinna anfusukum te ma nga ci sóoru tawba kon ma mooy li nga xam ne mbooleem ñi mas a songu yonent yi mbugal ma dal ci seen kaw jéem a xotti ma yàlla moo leen teg lool lu la neen sàmmanteeg worma yàllaat mbooleem góor ñi mas a jóg egg ci seen borom loolu moo leen fa yeggale kon mën nañ ne mhm. sëriñ bi dafa indi loo xam ne mhm. mooy lislaam mhm. mu tudde ko benn baat mooy ak taalibe lii di ndigal ak worma ku ci jóg nekkatoo ci diine te it jàpp naa ne benn jaam boo mën a génn ci lislaam te gémmiñam di wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi yaakaar naa amul ci biir worma yooyu moo tax ba sunu borom indi guddi ak bëccëg mhm. mënoon na def lépp leer mhm. kenn ku ne la ngay def sa morom di janal loolu loolu bokkul ci war mhm. dafa am ñaari xeeti war ma nag yu am te nit ñi xàmmewuñ ko ci jamono mooy yan muy war ma ji nga xam ne yàlla ko digle ci ab jaamam nga def ko te yàlla tax booba da nga am tiyaaba ak war ma ji nga xam ne ki ngay warmaal ragali duma moo tax nga warmaal <laughs> ñàkk pexe ñàkk pexe ndax da nga naan diwkat tey su ma xottee war maam lu waa sàngam dana dal ci sama kaw mhm. boobaa yàlla taxatul mhm. te innamal a'malu bi niyaati mhm. innamal li kulli imri'in ma ki nga xam ne nag yàlla daf ko warmaal nga nga warmaal ko la nga cay amee mooy li Cheikh bi Fall roote woon ci xaadimu rasul te Ababacar Saddex roote woon ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi tënk ñetti worma ne ñetti worma yii ku sàmmonteeg moom ci àddina xëy na mën nga da nga mën a amul mucc ñu ne ko ñetti worma yooyu yan la mu ne wormay sëriñ wormay buur ak wormay docteur ñu ne ko ñooñu wormaal leen ak ñàkk gee wormaal lu muy jur mu ne leen buur yi muy tere wattandiku gi dana tax nga ñoŋ ci toroxtaange jëfe gi itam mm-hmm. dana waral nga dajeeg toroxtàngeen mm-hmm. kon lu ngeen mën a moytu ci loolu na ngeen ko moytu mm-hmm. daal ne ndigalal sëriñ yaa ayyuha lazina amanu ittaqullaha ibtaxu wabtaxu ilayhimul wasila nga xam ne kerkeraan la bopp dafay xam di dox sa digg ak sa borom mu dindi yooyu xal la yoon woo xam ne daf lay marale ak sa borom kon moom fa mu teg bëtam ak la mu xam ci yoon wi moom mi nga xam ne jaar na ci ba yegg mhm. yow mi soo a jóg doo xam jafe-jafe yooyu ci nekk mhm. kon lu mu ne la moytu ko mhm. moytu ko dana la jural ak mucc fu mu ne la aw fa aw googa dana la jural jariñu kon na ngeen di wormaal seen ndigali sëriñ ñu ne ko bi ci des mu ne ndigalal docteur ndax ki nga xam ne dangaa jaaxale ci sa bopp bu yóbbu ko jibbal ko ko mu saytu ko ba ne la na nga bàyyi nangam xam na moom nangam googa jëfandikoo ko lan la lay wàññi waaye bu la digalee na na nga jëfandikoo nangam xam ne jëfandikoo nangam googee lan la jëriñ ci yow mhm. kon moom it na nga ko wek mhm. ndax jëfandikoo lam lay teree mën naa yokk ci yow jàngoro mhm. ñàkk jëfandikoo lam la digal nga di ko jëfandikoo mën naa indi sa tawat jëm kanam kon dama mel ne addina ak alaxira lépp ci ñaari baat yooyu la tënku muy ndigal ak tubaarkàlla <laughs> jërëjëf maam Ibra euh, daa mel ne sëñ Aline sëñ maam nag euh, euh, mi ngi mel ne tibb na ko fu sori nag te mi ngi wàcc nag mhm. waaw mel mel na léegi mu egsi de <laughs> léegi mu egsi <laughs> war war ma moom mhm. moom ak sunu àdduna bi mooy moo ñoo ñoo ànd ci mhm. nag ko xotti war ma wala jëfe wala ormal ko sunu borom ormal waaye am na yu xew yoo xamante ni ñàkkul ni xëy na lu ñuy laaj sëñ Mame Ibra la mhm. bu élément bi ñëwee ba jàll lu mhm. ñàkkul ne dinañ ci indil ay leeral mhm. ndax li xew léegi laa bëggoon ñu jàngat ndax tudd nga fii uh, maanaam ñiy xotti warma nga xamante ni ñu ngi bokk ci xisbu cheytaan ayaaju billaahi xisbullaahi moo am ak xisbu cheytaan ñi bokk ci xisbu cheytaan liñ naan ñoom moom ñun lañ ba mu kukk ñëpp xàmmee nañ leen mhm. waaye li xew léegi nga xamante ni da ngay gis koo xëy ni daf ni man si jullit gi laa bokk ci mhm. xormalante bi war a dox si digganteem ak bokki jullitam léegi tumuranke loolu mhm. ndax wax nga fi sànq ba joxe exemple lu mel ni si ngir yi ngir yi seen biir wuute am na waaye ku si nekk jox na moroomam cër ku nekk nangul na moroomam waaye jamono jii da ngay gis ku jàng benn téere wala ñaar jàpp ni kat maanaam diine si yow la tàmbalee ci yow la yem keneen ki kat lu mu nekk moo wax dëgg yàlla da ngay gis sax léegi léeg ñuy jël aay yoo xamante ni sunu boroom daf ko dëxal yéefar yi ñi nga xamante ni ñëpp xam ne ni seenu gëm moom mm-hmm. li sunu borom di wax naan xatamallaahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absaarihim xisaawatu mm-hmm. maanaam sunu boroom moo leen ko def bu mm-hmm. xam ko ñu jël ko di ko teg léeg-léeg si kaw kaw kaw jullit yi maanaam diggante war moom diggante jullit ak mbokkum jullitam léegi niñ koy xottee léegi euh, daal luy lu lu lu luy jar a indi ay leeral lay doon. Mm-hmm. ñàkkul ni sëñ Mamour di nga dem régi ñëwaat. tubaarkàlla sëñ Aline Badara sëñ Maam Cheikh teel foofu ñu dellu Touba euh, jotaay bi nga xam ne Serigne Cheikh Jëmmu Fall woote woon na ko keroog ci déclaration bi. Mm-hmm. Euh, kaddu yi nga xam ne jib na fa euh, ci kaddu sëñ Moussa Fall Fatikan mu sëñ Moura Minta mu wax ci ndigalal Serigne Cheikh Jëmm mu jëm ci wormal yoon wi ñu dem régi te dellusiwaat ci jotaay bi. ci ndigalal suñu kilifa gi toog ndax. yonum saa sallam dafa ni isa asbaha al abdu fa inna al ahdaa tastati ila lisan fa taqulu ittaqillaha fina fa in istaqamta istaqamna wa in ihwajajta ihwajajna nee doomu aadama saa bu xëyee cër yi dañuy dàggasante ak làmmiñ wi naan ko ragalal yàlla ci ñun ndax xamoo ni boo jubee ñu jub boo dëngee ñu dëng nga ñu mooy mbooleem koo xam ne yaa ngi fii ci biir réew mi ñu ne ak feneen foo mën a ne di yëkkati yenn kàddu di ko teg ci chef bi wala ñu mel ni ñoom loolu dañoo bëgg mu doon loo xam ni lu daytalu lay doon muy dugg ci mbirum awliyaa yi Sëriñ na wa minhu kun illa yasa isra yi waximatun fi sahni lawni fi dugg ci ci ci mbirum ci mbirum ci mbirum awliyaa yi hmm. musiba rek la jur loolu moo mën a taal am réew moo mën a xañ am réew jàmm ndax ina ahraad al anbiya wal awliya wal ulama il xaamilina masmumatun awliya yi ak borom xam-xam yi ŋàññi leen tooke la tooke nag ku fab di ko lekk defe naa loolu mënta jural am réew jàmm ndax kilifa gi su fekkee kilifa yi mën nañ ko muñ kilifa yi am nañ ñeneen ñu aju ci ñoom te nit ñi yemuñu loolu mën naa andi guerre civile ci am réew moo tax ñu woote woo ñi nga xam ni ñooy jottali bépp xibaar ñu woo leen fii ci kanamu sëñ bi ngir jottali kàddu yooyu ba nga xam ni mën naa mën naa mën naa mën naa am mën naa am état jot yi mbaa keneen ku mën a doon mbaa keneen mbaa keneen ku mën a doon ku jiite nit ku jiite ay nit te war a wax ak ñoom nga wax ak ñoom ci loolu ndax weddi nit doy na ja gëwuma li nga gëwuma li nga nekk waaye soo ci ja soo yàllee leneen lu bokk ak loolu rek yaa ngi tooñ te alquran waxoon na wala tasubul lazina yad'una min dunillahi bu leen ŋàññ ñi nga xam ni wóotewuñ lu dul yàlla dañuy woote lu dul yàlla ndax soo ko defee soo ñu ko defee fay subullah xandoon bi xayrin min ñoom it danañu ŋàññi seen yàlla ji ci dul xam loolu alquran woon na ko terewoon na ko mboolem jullit ñi te walaw sa allahu la jaxalakum ummatan waahida su su neexoon sunu bu neexoon sunu borom mu def ñu wenn xeet waaye walaakin yabluwakum fi ma ataakum sunu borom moo ñu nattu ci ku ne la nga war a indi indi gi nag weesuwul nañ dëkkante lépp lu baax ndax amul lenn lu baax loo xam suñu mas na ko ubbi yemale ko foofu la daa maye lu baax ba léegi mi ngi ko ba léegi mi ngi koy maye lu ca waaye mën a doole ba tey it suñu borom tërëwul loola ndax laata laata laata yi di xew waxukaay yi di xew ku na bëgg joko joko joko ak nit dañuy jël ab lettre bind ci mu am bisu del ci wala mu am wër nga doo nga nga mu doog àgg fu jëm légui nak jamono yi tollu jamono yi ci ginnaaw téléphone kër gu ne ben téléphone fa daa am wala koñ bu ne wala dëkk bu ne suñ la soxla nga dem ba fofé nga dem ba fofé nga nga tok fa di xaar ñu wala téléphone légui nak que liggéeyoon téléphone moom bu déggee ni kër gu ne. nit ku ne am nga téléphone ci sa poche tey loolu mbégte la doon ci moom. loolu mooy ñi loolu boo déggee ma wax loolu mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo doon woote lu baax wutaluñ ko woon volontaire wutaluñ woon lu baax volontaire te doomu aadama kalaamu ibnu aadama kulluhoo imaaxale yi aw lahoo waxi doomu aadama lépp musiba ñek la doon ci kawam lu baax wala muy doon musiba ci kawam kon señ bi mi ngi mi ngi jot li lolu bëgg ñepp dégg ko Cheikh Ibra du morom kenn Cheikh Ibra du màppandoo kenn lolu na ñepp xam na ñepp xam lolu lolu nak ma ngi koy wax ci ci turu señ bi la wax lolu ba tey am na ci ci gaa yu baax yi ku waxoon ni waxoon ku waxoon ni suñu borom soo ma wattalee sama sama làmmiñ rek soo ma wattalee sama làmmiñ rek moo ma gënal may dëkke julli ak may may dëkke koor ndax isaara ayta wax na ala diinika aw xasaawatan fi xalbika aw xirmaanan fi risqika soxlam annaka takkalam te ma laa nika saa yoo gisee sa wërsëg néew wala sab xol wow wala nga xañu wala nga ñàkk diine xamal ne wax nga loo xam ne jër du la jëriñ te inamin min husni islaamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi daa bokk ci njariñul euh, islaam rafetul islaam nit ki lépp loo xam ni amulu ko njariñ mu bàyyi lépp loo xam ne amulu ko njariñ sëriñ tubaa nag kuy wax naan képp kuy wax naan sëriñ tubaa baax na waaye ñi mu àndal baaxul na nga xam ni juwee nga ak li sëriñ tubaa wax ndax sëriñ tubaa moo wax ni xawaytu maa xawaaxu saabixuuna waja waja ani xamu murafiquna ma wax ni làq naa loo xam ni ñi ma jiitu ko te lolu yëmul ci man dama ko and ak ay nit kon amul kenn ku baax ku sun borom masa yabal digal la lu baax lu baax la yem ci yow kep so gisee mu naan ayaa xaadimal muxtaar tan sa sax bu fa ma yen fal matu matu mu xatawu daane abou bakri siddiq kon xam nga ni kep ku ku kuy tagg bi te bolu wu ci ay sahabam xamal wa tagg njuumte la kon Sëriñ Tuubaa bu ne suloo jël ak mbaax te yamale ko ci moom te yamal te boole woo ci ay ay àndandoom loolu mënta ne waaw Sëriñ Tuubaa baax na waaye ku mu àndaloon baaxul ñun wutuñoo baax sax sëñ bi daa woote rek ñu wuy si ko suñu baaxul it ànd nañoo ku baax li yées mooy baaxoo àndoo ku baax waaw ñun suñ lépp mooy sëñ bi baax na lépp waaw suñu lépp mooy sëñ bi loolu nag moo tax kon daara ji ñu ngi ci gën di woote yu mel nii rek wax xeeti wax yu mel ni yoon rek moo tax daara ji jóg waaw bëgg nit di jàng xam-xam di ko di ko booleeg yar ak i teggin mm-hmm. ndax xam-xam su ko nit ki amee te su ko jàngee te boole ko yar ak teggin du ko amal tubaarkàlla eh, jërëjëf sëriñ Moustapha Fall Fatikan moom sëñ Mourou Aminta Fall kàddu yu am solo yooyu nga xam ne eh, wax na ko ci ndigalal eh, sëriñ Cheikh Jëmmu Fall xalif général de Baye Fall keroog ci àllarba jooju nga xam ne sëriñ bi woote woon na ko foofu ci kër gi waaye gis nga euh, sëñ Aline Batara dégg nga li mu wax. Euh, euh, mu ne li gën a yées mooy sëñ maam dégg nga mu ne li gën a yées mooy baaxoo àndoo ku baax. bëggoon nañ nag foofu nga tàbbi ci ndax worma ji dafa mel ne des na. ndax comme ni nga ko waxee léegi rek bëri na ñooñu sax da leen di jaral sax ñuy jóg di attaqué yoon wi ñooñu yow sëñ maam naka nga leen gisee. waaw sëriñ maamo wax naa la ko ci biir waxtaan ne la ko mas a song sëñ Tuubaa am ndam amut. Mhm. bi songo jote mom kep mo songo mhm. daf tay boy tag jambar hmm ya fus bi defu dara day japp ne tang koy xass rek amu ci moom soxla moy mhm. li seigne Moussa Ka di léebu wax ne mhm. nobal ba engagé ba dem ci guerre ba nu ak civil bi su payoor lan moy noblesse noble bu jëkk mag dañ la wax ne li nga ma lebal kat limay ñaan -hmm. nga am bis ba ma mën na koo fay jaral leen joxe seen bakkan waaye ki nga xam ne moo engagé woon joxe bakkanam joxe léppam mooy xaadimu rasul lu ko neen xawma ko fi Sëriñ Tuubaa képp moo mooy noobal bi engagé dem ca guerre ba xeexal réew mi dellu si ñëpp añ lu ko neen ñëpp a baax nag ku ne mën ngaa jàngi ku ne mën ngaa wuti ku ne mën ngaa yari waaye li ñu fi ndamoo tey di ko bàkkoo ci lislaam cheikhul xadim ñu bari nag dañoo jàpp ne waxtaan ak ñoom ci baaxam gi mhm. xas leen la wala tuutal leen déedéet da di waxtaane jàmbar ci ab yaafus xasub yaafus la ba tax ñu bari jàpp ne dañoo necc seen kaw te taluñu leen sax nag mhm. ndax Serigne Touba dafa wax ne mhm. kuy wax ne Serigne Touba baax na waaye ñooñam baaxul ñooñu yàlla nga xas ndax Serigne bi dafa wax ne askuruhu wa xaadalil abdaala Mhm. kama kafanil harba wal jidal ca wa kana haqqan kon koko womatul ay yambar mhm. ak tapalé kat ak ñuy kompolo ak ay tubab mhm. ngir xex l'islam taluko ñi nga xamne ñom lu gur gur and ak ñom te jëm ci seen borom moy gaay yalla yi rot fi kanamam te jox ko seen bop te kenn ku ci ne sunu borom rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax ko ne ko sa borom neene kenn ku ne na nga and ak mom ci kem ab tolluwayam ak maqamam ci ak Mhm. kon bu seex Ibrahima Fall ñëwee ne mas nañ xibaar ak jébbuloom mooy wax na yàlla mi ko moom moo ko ne mhm. kon ku yër ci téere naar yi mhm. ak lekk seeni neexal di wax la ngay wax sëfunu li Cheikh Ibrahima wax rek la ñuy topp te maa ngi leen di xamal ne jamono ku bañ sa ñoñ bokk ci Cheikh Ibrahima Fall jëratul ngay denc soxna lu fi waaye jur Cheikh Ibrahima Fall dana ci jël wàlla ak koo mën a doon nag ñiy song sëriñ bépp bala ñoo yegg ci sëriñ bi dañuy dajeeg ñetti gayndey sëriñ bi bokk wenn tur ñeenti gaynde yu tudd tukka mhm. ci songu tey wax mhm. la ngay ciy daal di dégg mooy mhm. tëlatu ko gaynde tëlatu koo koy song bu ca jógee sañatu koo koy song bu fa jógee xamatu koo koy song bu fa jógee amatu ko moo koy moo koy topp te ku fi masa song ak sëriñ bi te dajewut ak yi amut waaw jël nag formé leen ngir di leen xeexi sëriñ bi dañoo xam ne xupp jàmbaar mënta ne bu ñu doon bu fekkoon xupp jàmbaar mën naa am mhm. kon tubaab yi xupp sëriñ bi bañ xupp Cheikh Ibra Fall mhm. te xupp nañ ñëpp bañ na moot sëriñ bi wéyal la mu doon wax mhm. ba ca topp mooy naab ab ragal fexe ba ragal ñeme yàlla muy maqaama moomu kenn <laughs> ñi ragaloon tey lañ gën a ragal te ndigal yooyu leen tubaab bi doon déy dont duñ ko fésal loola la ñuy ba tey ci suuf ba ca topp mooy yaxal ak màggat mhm. bis boo yaxalee sa màggat ba jàpp ne war naa mën a daan ci arène mhm. lex yu newi nga ko yóbbu ak gaaw a rek mhm. waaye du faju ñii jël sëriñ bi nag màggat li ñu la rek kon bu mu la yàqal say soxla ba ca topp mooy garab yi ñu fi jëmbat te jàpp ne seeni ker war naa mën a mëdd keruk sëriñ bi suuxat mboob la ñax mu dee suuxat ko da nga yàq sa doole yàq sa ndox te doo am garab mukk te ñiy xeex ak sëriñ Tuubaa ñëpp foofu la mujj ba ca topp mooy ñi ci réew mi mhm. te bëgguñoo dem te bëgguñu ko dem mhm. loolu mooy mhm. tunk nanguwut a yéeg day metti sa loos metti say mbagg tung ku nanguwut a yéeg dañ ko yenu ba defee ne jàpp la Seex Ibra waxoon na wàccee mu toogaat ci saw mooy la Seex Ibra waxoon na jël la fañ jiital ko teg ci jël gumba jiital ko teg ci la fañ bëgg a dox mooy lool dox du yomb xanaa te it fi ne <laughs> am naa féq dana julli naa féq dana dem mag naafiq dana woor mhm. lépp lu lislaam di santaane ab naafiq dana ko def mhm. ci jamono yi sallallahu alayhi wa sallam am na ku faatu ñu ne ci saxaaba yi la mhm. bi ñu ñëwee dañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite ko bëgg koo jiite ba ay werante am ci ñu ngi ko jiitee ba pare alxuraan daf caa wax ndax kooku am naafiq la ci munaafiqoona yi la waaye du jullit bari na jumaa joo xam ne kafa di fa jiite tey boo génnee ca moom ak naafiq dara dafa des dara du ca des mhm. boo génnee ci moom mhm. ak naafiq mhm. dara du ca des dara du fa des ndax Cheikh Ibra Fall bi mu jébbalu ci Serigne Touba daf ko wax ne ko ñaara ngi nii yoo xam ne duma la ko jox Serigne bi ne ko ñaar yooyu yumu mu ne ko bi jëkk mooy sama ngor ba ca topp mooy sama jom mu ne ko lu tax mu ne ko sama jom mooy tax lii ma diggaaleeg yow lu metti metti du ma wàññiku Mm-hmm. mu ne ko bi ci topp muy sa ngor mu ne ko sama ngor mooy tax ëllëg lu mu neex neex ma xam ne yow te réew mi léegi <laughs> mm-hmm. ñu ci bari jaay nañ seen jom jaay seen ngor mm-hmm. ñenn ñi dañ koo jaay ay tubaab ñenn ñi jaay ko ay naar kon ñaar ñoo ñoo leen séddoo ñaar ñoo ñoo leen séddoo tubaab yeeg naar yi ki naar bi jënd day fexe ba mu tabax jàkk waaye posone bu lislaam lay doon daf koy wax ne ko na nga yor melokaan woow tey fi ne bu fekkoon na ngay posé nit def ko ci café mm. te mu gis ne kafe gi dafa am melowu bokkut ak kafe du ko naan mm. waaye day nuroog café te loolu mooy mot naa naafiq mm. ba mën a def liñ ñu koy defloo ci lislaam ñu ci bari seen ngor ak seen jom jaay nañ ko ba def ko ci seen poos ñii ware koy oto ñii takkee koy jabar ñii tabax koy jàkk ci ay koñ mm-hmm. ngir lu justifié xaalis bañ leen joxoon mm-hmm. kon kooku yow mi nekk ci lislaam mm-hmm. bu ko def ab nawle bu ko nawloo am na sax kàddu yoo xam ne boo ko yëkkatee di ko jëmee ci moom da koy muy bunt ndax ca gannaaw rek bu ngeen seetaanee ci média yu bari ci àddina bi am na njiit loo xam ne ci diine la ne dafa ŋàññi sallallahu alayhi wa sallam lu ci jublu dund na ba am juróom ñeen fukki at kenn xamu ko xam na ne bu tooñee yonent bi milliards nit xam ko ci bis bi promotion la doon wut tax na réew mi xam nañu ne ñi fi dëggal te tege ci siratul mustaqim mooy Cheikh Ahmadou Bamba ak waa kër képp ku bëgg a promotion ci loolu ngay jaar hmm. waaye ku ca jaareet naam posen la ci moom hmm. Hmm. bu kenn xamut lu ko dal ci moom xam na ko yet wi Cheikh Abdou Lahad doon wax naan yet waa ngi fa xaajuta làqu jaan ju dem ba xam ne mat nga boo koo buusu mu gumba koo matt mu faatu mu ngi fi xaajuta làqu te comme dal ci kawam donte kenn yëgu ko dana xam ne yet wi dal na ko ngor nag ak jom boo koy leblee danga koy lebal ku ko am mhm. Mhm. waaye tey boo doon leble ngor te di ko lebal koo xam ne dus gor la ca gën mooy nga may ko ko ndax lu mu góor góor góorlu góor góor du la ko mën a fay mhm. te jomi réew mi ak seen ngor mooy takkatoo topp ci ginnaaw seexul xadim te di ko liggéeyal ndax li mu fi defal sallallahu alayhi wa sallam ku yëkkati sa loxo te ni diine la ñor ah war nga ko mën a fay bor topp li sëriñ bi wax nag wa anta lam tasali muridina li annahu li wajhi llahi taala al karim wa xidmat rasulihi salallahu alayhi wa sallam loolu rek mooy li dal murid yi mm-hmm. Mm-hmm. xam nañ ne bor topp bor ma mm-hmm. ak liggéeyal bi ci yonent bi sallallahu alayhi du ko wàcc kon ki ko fi wóotu di seexul xaddim nañ ko fay bor boobu fay bor daal lañ ameel Cheikh Ibra waaye luñ koy topp amul ci réew ab taawam fu mu des ci guerre guerre mondiale te seexul xat bi a tax mu def ko. Mhm. Mhm. lu nekk ci àddina Cheikh Ibra defal na ko. Mhm. léegi nag gone goo xam ne day soog a fer ijji. te it man jàpp naa ne saxas gor du tooñ. gor dëgg du tooñ. ñaare ku ngeen fekk ci yooyu. maa ngi leen dénk ñaari baat. ni ngeen xool ab juddam rafetul. te wolof yi nee nañ lu réer ci juddu day feeñ ci jikko. <laughs> ni ngeen xool dereetam dus gor ndax gor du tooñ. ndax hind bi muy tuub si ci sallallahu alayhi wa sallam am mm-hmm. na ko kàddu gi may dégg dafa mel ne hind la mm-hmm. mu ne ko waawaaw mm-hmm. mu ne ko diini ji ngeen di dugg de ku ci dugg na ngay ba njaaloo mu ne ko ndax as gor dana njaaloo nga xam ne moom duggagul ci lislaam waaye xam ne ne gor du def lool <laughs> as gor tooñ rawatina tooñ koo xam ne wér na la moo mën sa baay waaw kenn wérantewu ko de ndax li wérte wóor mooy réew mi tey nañ def sondage ñu xool téeméer boo fi tànn mhm. ci ndaw ñi jeunesse bi mhm. quatre vingt pour cent yi mhm. bu ñu dugg ci l'islam ay bàyyi xal la ñuy doon te noteel gi nga xam ne l'islam dig nañ ko ko ne balaa dundee wol bufta bi di wol l'islam dana not ci diine cheikh ahmadou bamba laa ko séentu ndax wér na ma ne tey ñëpp takk woon topp ci ginnaaw sëriñ Touba. iran tey mën naa jël la muy waajal ci ngànnaay digal ko ci océan bi états uni tey mhm. bu tëddee day yandoor mhm. bu ko neexee lu mu waajaloon mhm. ci jàmmaar la mën na koo def ci océan bi te xat du dam sëriñ Tuubaa képp moo woote diini ju mel noonu kon bu ñu yaatalee saay-saay soo xam ne dañ leen di financé ak di leen wut looy ngànnaay ak di def lu jaxase xoli doomi aadama yi ak lu tas am réew defe naa ne loolu ku bëgg jàmm leen jàppale defe naa ne loola ku bëgg jàmm doo leen jàppale sëñ Tuubaa mooy jàmmi àddina mooy jàmmee àllaaxira. tubaarkalla sëñ maam ñu ñu ñu dellu ci ndim te ñëw dégg xam naa du ñàkk njàngat mu am solo nag sëñ Alioune Badara moo def ci kàddu yi nga xam ne sëñ maam yëkkati na ko. Mhm. lépp rek mu jëm ci worma ji. ak jamono ji ni ñuy attaqué yoon wi. Mhm. di di ñi du jëm ci sëriñ bi ak ñooñu sëriñ bi. dëgg la mhm. fi ma bëggoon mu tontu rek tontu na lu muy analyse bu am solo boo xamante ni def na ko. ñi nga xamante ni dañ ni dañ see bokk. te te te te te maanaam ndekete dañ ab ab ab ay munaafiqoon lañ maanaam ay munaafiqoon lañ ay ay ay ay ay naafiq lañ si biir si si biir yoon bi si biir jullit gi moo tax ñuy jëfal jëfa jëfa jëfandikoo jëfa ki laaji araayta in kasaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara araayta in kaana ala alhuda aw mara bi taqwa yooyu yëpp da nga koy da nga koy indiwaale waylun lil musallina moom miy julli bay ŋàññi ñu dul julli ndax taxut suñ borom ne waylun lil musallina booba xamoon na ne jullikati naa fekk ngi fi yoo xam ne sawara rek waylun rek mooy doon seenu fay ndax seeni xol laabut seen jikko laabut seen alal laabut loolu rek moo koy fay da si nawum an salaatihim saahoo na nag ab jaam war na ko mën a moytu ndax imaamu malik tey lan moo tax ñu ne imaamu malik tay boo yëkkatee say loxo ne allah akbar war a julli mm-hmm. sa kanam loxo dafa weex tal mm-hmm. war nga sa borom ne ko booliwuma laag dara mm-hmm. sa gannaaw loxo dafa ñuul war nga addina ne ko war naa la gannaaw nga julli ba sëlmal signé ak sa borom contrat mu làmb sa xol xam ne la du yàlla loolu gàcce la <laughs> imam malik ba mu toogee ca jàkka ja lekk mburóom julli benn ràkk sëlmal dañ ne ko tey dañ lay rey bañ koy indee ba yeew ay loxoom ci gannaaw mu ne leen may leen ma ma laaj ñaari kàddu mhm. daan ne leen nee leen imaam bi leen jiite tey bi muy dem ci bi muy ñëw ci jumaa ji dafa romb tiise ci sën bi daggitu tiise mhm. bi muy julli benn ràkk xelam dem ci ne tiise boobu dafa nuroon bi ma xotti loon sama soxna ndax du moom mhm. gannaaw tal naa dem ci sën bi di xoolu Mor Sam lu def ci jumaa ji moo ma tax a sël ma ñu laaj imaam bi mu ne ah wax na dëgg de ñu ne ko ñaareel bi mooy mburu mi ngi fi lekk kon nañ la reyee mu ne wër leen alxuraan ak addis ba mu daj mm-hmm. fu mu ne ku lekk ci jumaa nañ la rey ngeen rey fekkee am mm-hmm. <laughs> ñu wër ko gisuñu dara ñu ne ko yow mi xam yii kat yaa ñu war a jiite looloo indi imaam Malik eh, mm-hmm. Cheikh Ibra Fall def na ko fii ci Pire ba imaam ba jiitee benn rakk xelam dem ci ne sàmm bi ñëwoon na ko ne jur ga dafa réer dabi naa leen waaye jotuma ne xelam dem ci ñi mu wara a teral tey mhm. gàtt bu mu leen di terale mhm. cheikh rafal yey gurom génn mhm. bi mu génnee ñu na ah, ni juma jumaa jafe ci jamono ñu wax ko ahmadou bamba mu yabal fi doxom bi mu yaq suñu julli gi nanu mu def na imam malik defal japp ba sel ne ko tegal sa loxo waat bi nga defee ben rakka bako ko ya nga xalaat foo sa xari ba teral sa gan mag daw ñu ñu doon mu ne ko ah wax nga dëgg de. mu ne ko gannaaw yaa génn wëri say xar ma yëy sama gura. bisimilah waaw de yëy gura jot na. ma mais dafa mel ne daal signalé mm. maa gis naa ne daal. kon ay xam naa ay jullikat rek fi bëri waaye jullit dara yombut ko déedéet jullit yombut waaw kon ay jullikat <laughs> alxuraan nee na euh, yonent bi mm-hmm. ne ko ci xaddis mm-hmm. al muslim mm-hmm. man salima al muslima min lisaanihi wa yadihi abu daa ko indi te tey fi mu ne sàcc ak wor Mm-hmm. ak seen nag jël yëfi jàmbur. Mm-hmm. ci jullit yi la ëppee. su ko jullit yi ba woon rek daanaka mu jeex fii ci réew mi. Mm-hmm. fii ci Sénégal la <laughs> <laughs> ñu dellu euh, rés yi ànd ak sëñ Fallou Fall moom sëñ Aliou Fall moom mi nga xam ne keroog bi nga xam ne euh, sëriñ bi yëkkati na kàddu yooyu jëm ko jëmale ko ci worma moom sëtu Cheikh Ba Fall la ñoom tamit am na ay ay euh, gannaaw seen niñ ànde ngir fas yéene liggéeyal seen maam ñoom it fas yéene nañ takku taxaw ngir taxaw défendre yoon wi waaye hmm. défendre yoonu murit rawatina eh, eh, kër njabootu maam Cheikh Ibrahima bi nga xam ne ñoom naka jekk wor ma eh, ñoo ko njëkk jàngale ci yoon wi hmm. ñoom ñooy ñi nga xam ne kuy roy wor ma ci yoonu murit hmm. ci ñoom nga koy royee ñu dem yi ànd ak sëñ Fallou Fall déglu ay kàddoom te dellusiwaat ci sëñ maam Cheikh mu sëñ Cheikh Fall Mboor matukaayee moom ndax daayira bi nga xam ne ñoo fi woote tey ñun suñuy doom lañ Jazbul Murid daayira bi sama doom moo ko sosoon Aliou Fall ak sëñ Baynaar ak euh, maam Cheikh Fall ñoom ñoo ko sosoon kon ñun suñuy doom lañ waaye ñun ñi nga xam ni euh, dañuy ñëw si ñun dinu di waxtaan ak ñun dinu laaj xalaat euh, li ñu leen digal mooy nag ñu takku xam ni takku jot na ndax ku ni kat damaa bëgg jàmm da ngay fàgganiku ba dongaliku ba nga xam ni ku la gis dana xam ni gànnaayu nga gànnaay goo xam ni bu la songee Eh, dana dana dana ko réccu waaw loolu rek mooy mën a tax nga am jàmm waaw ah, ñun suñu wàllu boppit nag am nañ ay eh, association ak ay ay kii yoo xam ni eh, lu mel ne wax majmua Xudaamu Cheikh Ahmad Bamba sëñ Amsadou Abdoulaye moo ko jiite nga xam dafa englobé murid mouridisme yëpp. li nga xam ne moom ñu ngi ko envisage def nag mooy nag képp koo xam ne jógati nga wax ci Sëriñ Tuubaa wala Cheikh Ibra dara loo warta wax danañ jóg jàkkaarloo koog yow nañ ko war a jàkkaarloo yow parce que fii ay autorité ñi ngi fii mais autorité yaakaar naa waruñu euh, euh, seetaan loo xam ne mën na indi musiba parce que gëm dafa dafa dafa rëy dafa diis gëm dafa diis waaw waruñoo seetaan nit ñoo xam ne ay nit ñoo xam ne nit ñu ñu ñu yaree diku ah ñëw di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci koo xam ne ay junni junni millions yi nit ñoo ko ñoo ñoo ko ñoo ko ko yaakaar ah, man mii gën a bon gën a xeebu ci yoonu Baye Fall ëpp ma xam-xam ëpp ma len dégg te maa ko gën a maanu parce que tooñkat la ndax Baye Fall wala murit am sago ci sëñ

ah euh, à l'égard de Serigne Touba du ma ni sax Cheikh Ibrahima la di mouridisme parce que euh, le Baye Fall Baye Fall ak Mouride waruñu sax euh, du ñaar benn la ni kon Mouride ak Baye Fall waaw képp koo xam ne véhiculé nga ko yow ma ko véhiculé ak ko jël danañ la danañ la porter plainte waaw entre maa ngi ñaan képp koo xamante ne Serigne Touba yitteel na la ngay ngay ngay ngay ngay juriste ngay avocat wala ku mën di doon ñu ngi lay tàllal loxo nga ñëw. jàpp nañu ci loolu parce que fas nañ yéene média boo xam ne véhiculé tina ay wax yoo xam ne diffamatoire la ci Serigne Touba wala nga def ko ci Cheikh Ibra dañ la xam ne doone benn parce que chef religieux yi nekk yoonu murid euh, l'islam moo xam murid lañ tijaan euh, xaadir ak laayeen ñoom ñëpp euh, même les même yi ñoo tax stabilité am Sénégal parce que Sénégal yëpp ci ñooñu ñoo leen seddoo Sénégal ñi fi gëmut dara bariwut ku fi dul murid doo fi tijaan doo fi laayeen doo fi xaadir doo fi catholique bariwut te ñoo ñëpp am na kenn ku leen jiite ñu tënku ci moom te ka leen jiite lu mu wax ñëpp ñëpp maasi def ko te kenn du ci wax lu aw ay kon loolu chance la boo xam ne Sénégal daf ko am boo xam ne dañ ko war a pré. tubaarkal jërëjëf sëriñ Fallou Fall moom sëriñ Aliou Fall Mbor moom nag jàmbaar la. xam nga ne moom moo yor site boobu point com. jàmbaar la moom itam yaatal rek liggéey maamam bi. moom mooy mooy yitteem ñi ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi lool. sëñ maam Cheikh dégg nga li mu wax. waaw. Mhm. dégg naa li mu wax bu baax. Mhm. mel ne lu gën a mën yaatal mhm. ndax mhm. tey stabilité bi nga xam ne Sénégal am na ko mhm. ñu ko xoolee ci sous raison bi fu mel ne Mali ak dëkk yi ñu wër jàmm jooju amu fa te pas-pas yi ak topp gi ak ngëm gi am ci sunu biir moo womat tey ba jàmm jooju am Sénégal daf di nit nag li mu juddoo màggee ko li sëñ bi laxat waxoon ne sanc bi ki sanc sanc bi mooy xam ne sanc bi neex waaye ka fa juddoo du ko xam waaye mhm. ki nga xam ne fekk na sàkket taxawut mhm. teen bënnagut mu jànkoonteeg aw mar mhm. ab dundam yombut bu sanc bi neexee dana ko xam waaye ki fi juddoo li mu fi fekk rek day defee ne loolooy aada ci loolu la juddoo jàmmi Sénégal nag li na ko may mooy Cheikhul Khadim ndax tey Cheikh Ibra bi nasaraan yi tegee loxo sëriñ bi mënoon na jàmmarloo ndax doole ji Lat Joor amoon keneen ak keneen am ko amoon na fukkam waaye ci ak ak ndigalal Cheikhul Khadim na doon dox mhm. te buum la goo xam ne tey ñu mhm. buumuk ndigal mhm. moo ñu tënk waaye jàpp naa ne lu nu bëgg ci ay minutes mën nañ ko am ci fànn gu mën a doon kon dañuy jotal ci ñi nga xam ne ay kilifa lañ ñi nga xam ne ñoo ngànk réew mi ak ñi nga xam ne ay kilifa diine lañ ñu moytu yenn xeeti doxalin yu mel noonu te di ko bàyyi xel ndax ba ci sax li mu wax nii ci xeeti ma mm-hmm. maa ngi am loo xam ne lu may naqarlu la mm-hmm. te it du man dong la naqari bari na mm-hmm. képp koo xam ne réew mi ñor na la ab citoyen nga nit ku baax nga bëgg a doon loolu ñor na fan yi ni may gisee ci média yi diggante chef religieux yi ak homme politique yi di ci dajee neexuma ndax tey bu fekkoon ne dañoo séddale réew mi ci treize millions d'habitants nga boole chef religieux yi ak ñi tànn politique du mat 10 pour cent ci population bu Sénégal minorité lañ ciy nekk te kat ñoom lañ tànn ne leen na ngeen ñu defaral na ngeen ñu jubbantil ki nga xam ne mooy homme politique bi moom lañ tànn ci li ñuy wax institution moom lañ tànn ci li ñuy wax république xam ne dañoo dajale suñuy dooleel jox ko ne ko organiser bi ki nga xam ne mooy chef religieux bi moom la ñu jox li nga xam ne moo ñu indi ci kaw suuf muy jaamu yàlla ndax dañoo pine rek mhm. ku dellu ci ak saa yakunu nag mhm. yaa dellu ci tawfeex mhm. kon ñaar ñooñu tey bu ñu demee bay wuñ wuññeente ay mbubb di di di di ni ay sutura ci kanami télévision yi tey nu population bi war a jëflanteeg ñoom kon doge worma gi dañoo jàpp ni kiy wax rek moo yëkkati kàddoom wax waaye lii raam ci nag ñag bi la jëm Mhm. lima ma gis bu dekkul mhm. fu mu réew egg senegal man na fa ag ci lu bon ndax wor ma ak teraanga ak sutura mhm. jooju sunu borom def ci nun mag ñi bayiko fi te ñu war ko sam sa yuñ ko muree lay xew fenen xew fi sa yuñ ko muree rek luy xew fenen man na fay xew ndax bu ba sene tok ab tok ñi sagante ak waxante lu bon ñom ñi ñi womat ana fan nañ leen jëm kon dafa melni da am ñeneen ñu wara jitu ñu du ñom maa ngi leen di wax ne nañ delloo si seeni xel. ñu mhm. kilifa diine yi. Mhm. ndax Serigne Fallou ngi fi woon doon na wax ci politique waaye lu jariñ senegal la daan wax. Mhm. ak lu jëriñ jullit yëpp. Cheikh Abdou Lahad a ngi fi woon. ñeneen ak ñeneen kenn ku nekk am noo doon doxe waaye ci doxalin rafet. bu ñëpp naw. Senghor fi la nekkoon. Abdou Diouf nekk fi. Abdoulaye Wade nek ba ci Macky Sall mhm. waye kenn ku ci ne mhm. mbir mi moy nga doxal ko ci siratul mustaqim mhm. te baña a jaawale sa mbirum bop ak mbirum rew limay ñaan dal moy te sénégal yépp diko ñaan nanu fexé ba xew-xew yoyu di am bañatee am ñu teg ko ci siratul mustaqim guerre mondiale limi reey reey ci table la jeexe nañu bàyyi ŋàññante beeg wuññante sutura yi te waxtaan ci ñek ak teranga kenn ku nekk jallale li nga bëgg jallale Cheikh Ibrahima Fall jàppale ne fi ay politique lu mel ne Carlo ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mhm. waaye daal la doon yoot mhm. day soog a yegsi mhm. te ëgg gutit fa mu jëm yëf yi mooy fii ak ñi ngi dog wor ma ak di jàpp ne mën nañoo bëccëngal ku yàlla teral lu ne mën naa xew ñi nga xam ne nag noonu la Cheikh Ibrahima Fall téye woon réew mi Serigne Touba téye woon ko noonu nañ dellu ci siraatal mustaqim te bàyyi caaxaan yi kenn ku nekk nga dellu si sam xel bañ a doxal sa yëfi bopp te doxal yëfi réew mi mm-hmm. bu nu ko defee jàmm mm-hmm. Mm-hmm. li ñuy wax nag moo di lii sëriñ Fallou Fall wax léegi ñi nga xam ne mooy ñooy doxal yoon mu doon peesekaay yoo xam ne dafa war a tolloo ci ñëpp waaye bañ a doon li nga xam ne moo xew ci yenn réew yi boo bokk ci askan sàngam loo def baax na boo bokkee ci askan sàngam loo def baaxut loolu doxal am réew du doxal lislaam mhm. Cheikh Ibra Fall nag mhm. mooy sunu lépp mhm. addina mooy sunu lépp àllaaxira kenn ku jàpp ne man nga ñoo théoriser wala nga wax wala nga xuppe ba tax ñu dellu benn centimètre gannaaw ci Cheikh Ibra Fall amut ku ko man amut yàlla sàkku ko kon nanu delloo si xel yi bu baax te jox ko worma ji nga xam ne mhm. moom la jox Cheikhul Khadim ñu delloo ko ko mhm. Mhm. worma ji nga xam ne moom la jox réew mi ñu delloo ko ko lii daal mooy wax ji tubaarkàlla xam ne ñu ngi ci cat li sax fi eh, xam naa kàddu yu mujj tënk ànd ak tàggoo mooy yéen ñi nga xam ne njabootu Cheikh Ibra Fall ngeen nga xam ne eh, na jekk xam nañ leen ci défendre fi ne lan mooy seeni matukaay ci ñooñu nga xam ne ñooy jub te dal ci kaw yoon wi waaw xam nga révolution mm-hmm. évolution boo gis ci ab dëkk mm-hmm. ci révolution lay jute mm-hmm. te it mën naa ne junj naa la ko ci biir waxtaan ne leen ñëpp noo xam ne warees na koo faje rek manees na koo faje ay dafa am benn baat bu ñu tënk muy ndigal nit ki nag ci pas-pasam saa bu fippoo bay def lu mu wërta def wala noo xam ne dañoo jàpp ni waru koo def waaye loolaay la mu war a def dafa fekk ko war a fajal fajut mm-hmm. injustice nag mooy indi loolu mm-hmm. moo di mm-hmm. attekaay bi bokk ñaar ñoo xam ne ñoo war a tolloo ay yëf mu faral kenn bàyyi kenn lii du du loo xam ne sax lu jafee faj la ndax man mi gën a fegg ci kër Cheikh Ibra Fall mën naa ko faj ci ay minute waxuma yoonu Baye Fall yoonu Baye Fall xajut ci réew mi waxuma laa ci genn kër mbaa kenn nit déedéet Cheikh Ibra Fall. Mhm. ku mu xaj ci moom ku du sëñ Touba amut. Mhm. Mhm. ku mu joxoñ te du sëñ Touba fu mu laawloo da nga faaw ca saasa nag. waaw kon dama laa indil sànq ne la ca ndar. Cheikh Ibra Fall am na nu mu doon doxe ak autorité coloniale. loola nag xayrun soo amee moo gën. su fekkee noonu amut it. te te kuur yi daan faj mën a faj. buy delloo ca loola. Sénégalais xamul ku. ku fayu ku to ku tooñ ku fayu la xam mhm. naan diw def na nàngam mhm. te tey addina bi boo xoolee ñu bari ñi ñi tooñ dañ leen di diaboliser indi leen benn tur kii terrorisme la kii nàngam ak nàngam la mhm. te flamme sans feu du am bu fekkee fay ci amut na lu tàkk ëllëg danañ xam ne lañ eh, li wolof yi naan xeeb sa xal mu lakk sa dàgg war rek moo lakk dàgg ji <laughs> déedéet sëñ Maam sa kàddu yi xam naa tàggoo. Mm-hmm. daa mel ne jotaay ñu ngi ci catal jotaay bi. waaw si tàggoo mooy. Mm-hmm. di soññiwaat murit yi rek. leen mm-hmm. xamal ne nañ dellu ci ndénkaaneel Serigne Touba. ak maam Cheikh Ibrahima. ndax Serigne bi moom lim ñu doon dénk mooy muñ. te ashabru nisul iman. waaye lim ñu doon dénk tam mooy. murit yi. njëkk dañ daan dóor di yow di génne. waaye boo ñëwee jàmbat dana ah, yow de. dafa mel ni xanaa xamoo ne. Mhm. saxaabatu rasul ñooy seen bàyyi ci diin. te sëy naa xam sotu de rey nañ ko ba xar dënam ba. Mhm. génne xolam ba yéey ko buusu ko te taxul mu bàyyi lislaam ko defee lu tege ci sa kaw it da xam ne lu toll noonu yéeg seegul fi sa kaw. Mhm. te bu ñuy dund sëriñ bi la. bu ñuy dee sëriñ bi la duñ ko booleeg lenn. di sant itam waa daairatu Jazbul Murid. wax ne lii ñu nekk. muy tabax daara te sëriñ Cheikh ji mu doon ko soññ léegi. ci loolu rek lan na ma sax xam Baye Fall mhm. idéologie mouridisme mooy liggéey jàmm yàlla mhm. mosuñu koo génn mhm. ci looloot la Cheikh Rafal nekk ku ngeen dégg daal ne songoo naag moom kookaa ko tooñ ndax ci liggéey ak jaamu yàlla lu nekk amul soxla ci kanam sëriñ bi nag li dénk ndaw ñi mooy yaay xes sibiyaanu la tastaqilu anil huda ay wabil ulum kon loolu dafa bokk ci daara jooj ñuy taawa te bokk na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne xayrukum man taallama alqurana wa allamahu te defe naa ne lu gën a màgg téere yàlla bi amut te sëñ Tuubaa ne kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walilaahi bihi zakkan waxaat ne yaa kitaabal karim anta xabibi waxal lii lii wax xab la kunta tabibi te lu sëñ Bàmba bëgg Cheikh Ibra Fall la cay jiitu te moo cay man bu ca noppee doo am lu ñuy defaraat looloo sabab itam ndaw ñu woote ngir ndaw ñi itam gën a sóobu ci jàng ak sàkku xam-xam ak liggéeyal yàlla ndax euh, loolu rek la sëriñ bi batal mhm. te yooyu ñu ngi koy dundal jàpp naa ne li Cheikh Ibra Fall waajal ci jamono mhm. fii ak ñaar téeméeri at itam yoonam bi day dox waaj na lu toll ne mhm. lu mën a jàmmaarloog ñu koy xeex ci ak façon buñ ko mënee def. asalaamaaleykum wa rahmatulah. <laughs> tubaarkàlla sëñ maam <laughs> kàddu yi am na solo trop. Eh, tubaarkàlla ci leeral yi nga xam ne indi nga ko ci ma waaye tamit indi ko ci mboolem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall nga ñi nga xam ñoo fi jaar. ak seen eh, kàddu fi yëkkati ak gis-gis bi nga ci am lépp rek mu tegu ci xam mhm. eh, waaye nag la sa maam waxoon rek ne maa sëñ Bàmb li ñu tax a jóg mooy génne naa fekk ci lislaam. Mhm. mu mel ne ñooñu naqaree xam lañ ndax fi ne tey sax ñi yëkkati ay kàddu ko teg ci yoon wi sax am na ci sax boo leen diw la dañuy jom lañ nan di loolu wurtu mëna nek parce que niñ leen doon déggé wala niñ leen doon xamee woon eh, défé won nañ ni addu du soppeeku ba ñuy wax dara di ko jëmale ci yoon wi waaye nak eh, ni ñuy mel rek moy bu ñëwee mel ni bu ñu bu gannaaw mel ne ak naafeq moo moo leen moo leen di dugg naafeq lañ sax ndax itam mhm. Cheikh Ibrahima dafa waxoon ne naafeq ci lislaam day mel ne ab jëmm ci toolu dugub nee na da boo ko fekkee ci du tool bi dangay defe defee ne mhm. dugub la waaye nee na tas yaakaari borom tool baa ko fa indi mhm. ñoom nag noonu lañ mel Cheikh Ibrahima waxoon na ko fa gébb sëñ Aline Badara xam naa kàddu yu mujj yi ñuy tàggute du ñàkk nga leeralaat numéro compte bi sax ndax mbokk yaa ngi ñuy bàyyi xel jërëjëf sëñ Mamour xam naa dañuy santaat bu baax euh, mm-hmm. maa Ibrahima Fall tey jàng nañ lu bëree bëri ci moom macha allah mm-hmm. te wax ji euh, tegu na si xam-xam mm-hmm. dëppoo naax yoon te bu ko dégg xam ni kii li muy wax lu mu gëm la te euh, fi mu bokk daal mooy yoonu Serigne Touba Xaadim Rasoul gi bokk si maam Cheikh Ibrahima Fall dañoo bëgg ñu xam ne pas-pas dafa sori si doomu aadama karena ke eh, wax na ko sànq eh, ñu ngi ziar bu baax a baax sëñ Fallou Fall mm-hmm. si wax ju am solo yi ndaxte xam nga eh, stabilité sociale mm-hmm. bi am ci réew mi dañ ko préserver bu baax mm-hmm. ndax dëkk bu fi am instabilité rek dëkk bu fi instable bu fi xaw yëngu lu si bëri boo ko ba biir am na ku ñu laal pas-pasam te nag ni nga ko waxee sànq murit maanaam sëriñ bi gënal bakkanam ñoom bu fekkente ni euh, dugg dugg nga si sëriñ bi wala laal si sëriñ bi gumba nañ tëx nañ lu nañ te koo xamante ni maanaam munoo wax wala nga jëf wala nga dugg def la neex ba tax maanaam mu euh, euh, génn si sëriñ bi maanaam jàppal ni bis boobu lay gën a laxasaayu gën a am pas-pas si sëriñ bi mm-hmm. kon loolu lu ñu war a bën a gën a bàyyi xel la mm-hmm. te on est dans une république su ñu nekkee si ab république nag ñi nga xamante ñoom lañ jox sañ-sañu dogal bi mhm. ngir ñu yoral na sunu république mhm. dafa am loo xamante ne moom la ñu war di tëddee mhm. di bàyyi xel bu baax a baax képp koo xëy ni gis nañ lii kat nga xamante ne yaa ngi ko yëngal mun na am lu mu jur ndax li ngay wax mu dit foo laalee pas-pasam buy tëb di ko fajal boppam sax du ko tey ndax bu boobaa gisatul dara sëriñ bi rekk la gis kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoo nekk si instance décision yi yor lu jëm si wàllu doxalinu réew mi nañu xam ni kat yoon wii ñu nekk kat moom mooy mooy mooy Sénégal mhm. te it mooy àdduna mhm. kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax gën a mën a sàmm nit ñi si worma. Mhm. waaye te gën a mën a ñoom it sax tegu ci worma bi nga xamante ne moom la yoon Serigne Touba gi laaj. Mhm. ndax nag Serigne bi defal nañu ko ba pare. Mhm. li si des mooy ñëpp nañ jàpp si sàmm. réew mi ni nga xamante ne moom la war a doxee bu baax a baax daal. ni nga ko waxee nag dafay di yoon ndigal. di yoonu kilifte kilifteef. moo tax waaye nag nañu bàyyiwaat xel bu baree bare. ndax am na si ñoo xamante ni wax dëgg yàlla moo xam bëgg promotion wala bëgg loo mën di doon. feneen. folowul tey damay dégg si euh, ñu ngi koy jeex bu baax suñu gànn masere léeg-léeg mm-hmm. mu ne léeg-léeg dañ koy dañ koy laaj ne ko lu tax doo jàng téere yi ñeneen ñi mm-hmm. maanaam moo xam téere yi ñeneen ñi wax si diine mm-hmm. waaye danaa leen ba ñu ma kaa jàng waaye damay bàyyi ba li Serigne tubaab bind jeex moo dooga ci xëy na yër téere yooyu kon kon kon kon kon nu bàyyi xel ni ni murit moom Euh, duggul si lenn duggul si kenn xamul kenn ku dul sëriñ bi kon nan nu bàyyi ak sëriñ bi bu baax a baax ñun ñu fees si del wax dëgg yàlla di bu baax a baax daay daayira Jazbul Murid ni nga ko waxee ci liggéey bu am solo boobu nga xamante ni bis bu sottee dina am lu bari loo xamante ni dina ko dina ko dina ko dolli ci ci ci yoon wi mooy li ngay wax rek yoon yoonu ndolleen loon dolleen la euh, ca kanam rek la jëm seen euh, compte bi numéro compte bi ñu tijji Ecobank di double zéro soixante quatorze dix vingt neuf 55 49 01 xam ngeen ni dit, c'est Fall ñu de koy ziar mooy président bi wala mbokk yi mun nañ ko jokk si 77 606 48 51 wala kii di Moustapha Fall mi trésorier bi sax ku ko woo 77 414 41 à 95 wala euh, Serigne Khadim Fall mi ñu dénk lépp lu jëm si wàllu finance si biir daara ji Jazbul Murid moom numéro di 77 952 70 74 di leen ziar bu baax di leen xam ni liggéey bi daal mu ngi noonu woote nañ ko Serigne bi soññee na si euh, ku si wuy si rek yaakaar naa ni wuy si nga si ndigalu Serigne bi di la ziar bu baax baax euh, sëñ maa ibra waa axiru daawaana alhamdulilahi rabbil alamin tubaarkàlla jërëjëf sëñ Aline Badara Ndim jërëjëf tubaarkàlla ci kàddu yi am solo yi di ziar bu baax mboolem mbokk yi doon topp yépp nag rawatina ci Touba Serigne Galas Mbacke moom Serigne Abo moom Serigne Fallou ñu ngi koy ziar bu baax a baax di ziar bu baax a baax mboolem njabootu Serigne Touba gi yépp rawatina njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi yépp di beral ziar ak ñaan Serigne tax moom Serigne Bassirou waaye tamit di beral nuyoo akub ziar ak ñaan sëriñ Bassirou sëriñ Abdou Khadir ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gi yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ci Gabon ne ci wàccaayu màggal gi di ñaan ci barke sëriñ Touba rek jéego yooyu ñuy dox yàlla nañ ci am ngërëmal sëriñ Touba ak tawfeexam di ñaanal bu baax a baax mbooleem ñu doon topp fii ci Ndakaaru ku ci mel ne Baye Khalif Fall Madior sëriñ Moustapha Fall moom sëriñ Abdou Sakor ñu koy siyaar baax di siyaar waa Parcelles ak Fadia yëpp nag ci mel ni mam mam mam Khoudia Ndiaye mi ngi ci faja di ñu topp bu baax baax bàyyi Moodu Mbay foofu ci faja ak mboolem yi ñuy topp foofu yëpp nag di ñaan ci barke Sëñ Tuba yàlla ci am ngërëmam maam Cheikh Ibrahima Fall di ziar bu baax waa résil bi yëpp ak mboolem ñi nga xam ñooy cameraman yi ku ci mel ak Abdallah Baye Fall euh, Fall euh, Zeto ñu Cheikh Anta Cheikh Anta ak ñu di ñaanal euh, Gueye Aline Gueye Seydi Thioune sëñ Xaadim Ndiaye Kayar sëñ Jili Abdou Xaadir Samb ñun ñëpp sëñ Alioune Thioune suñu borom dool leen fa yàggal bu baax ak liggéey bu am solo bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne Touba di topp ñëpp di ñaanal ñëpp nag ñi ñu doon topp bu baax a baax a baax ndax ñoom it kenn mun kenn mënta lim daal waaye lépp rek ñu dëpp ci ngërëmal maam Cheikh Ibrahima Fall bismillah